waaye ñi ñuy roy dañ leen di tànn dañ leen di xam mooy ñi fi nekkoon di nit dina ñoo xam ne mbooleem ñi sësoon ci ñoom ñi toppoon ci ñoom ñëpp ñu jub lañu te ay nit yàlla lañu ñooña ak ñañu yaroon dañu leen war a roy ñooñu dañu war a roy boo xamee nag yow lii baax na xanaa waruloo am ñàkk fay dëkk li leen wër ne baax na ay say moroom wala ñu la mag wala ñeneen ñëw yow sa bopp ñu di la ayibal naan la da ngaa wala yaa ngi topp ñi nga xam ne seen temps wéy na wala dox nañ seen temps ba mu jeex ñu bëgg a yàq sa àdduna nga dégg ko gëm ko danga nga woyof bopp dama yàlla baal danaa ko faral di wax nag wolof moom woyof bopp moom ci la gën a bare na ma man wolof laa na ma wolof yi ci des baal waaye dañ ko dañ ne jàngoroom danga koy xam faj ko faral dañ koy wax ci waxtaan yi rek naan man dama gis wolof di tudde doomam tukkulóor tubaab naar bambaraag yu nekk te ñoo ñëpp kenn du ci tuddee wolof sa doom xanaa wax ma gis ne même jigéen ñi jigéen ñi xewat lu kenn wax mu saf xorom ñëpp def ko xewat yére yére sax buñ ko kenn solee mu rafet doo xam doo seet jàpp na la wala jàpp la ñëpp a koy daal di def rek bale jënde ko lu seer balay am ñaari yoon ñu ne xew ne bàyyi kenn duñ ko solati wala kenn kii xew la daal di def lu bare bare bari ci dépense nga ne ah diw def na ko kon kat foo ko ma def lu mel ne li mu def yooyu yëpp woy bu yagu rek doon nañ fi wax mbiri yàq yi yàq alal daganul wala tusrifu inna la yuhibbul musrifina israf ci alal amna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf fekk kuy japp di sotti ndox mu bari mu ne ko watul yàq bàyyil yàq mu ne ko ah, na yaq yàq am sax ba ci ndox mu ne ko boo newoon ca takku géej di as ca it yàq bo yàq yàq la kon nit ki julit bi dañ ko sant muy jiital xelam ci lu muy def lu muy def na xam li tax mu di ko def te nangamay tax mu di def bu ne ñi ngi koy def rek naa ko def daal diineem day daal di wàññi ko ndax bu ko defee day daal di réyal ci xolam lu matul a réyal daal di woyofal loo xam ne gis na nit ñi woyofal ko rek mu woyofal ko te fekk lu diis la fa yàlla gis nit koo xam ne benn doye dina wala ñàkk na wala wéra dina wala tilim na nit ñi xeeb ko nga xeeb ko te xamuloo kooku fu ko yàlla teg yaa ngi topp nit ñi rek rus ngaa sax ànd ak moom loolu yépp woyof bopp la ndax ni ko faral di waxee rek xadis riba xabru ruba xabrin yu zaar wa saahibu fi naar bare na bàmmeel bu ñuy ziyaare ji te boroom ma nga ca safara ndax nit ñi dañoo xamul lu dul zahir bi te zahir bi tuuti lañ ci xam xamuñu baatin bi tax ñu ne rubba aduwin fil aba wa sadiqin fil xaba bari na xaritu yàlla boo xam ne yaa ngi ko fekk ca poma muy fo ak noonu yàlla boo xam ne yaa ngi ko fekk muy jaamu boroomam lu tax lu muy mujje nit ki li muy mujje rekk a takku feeg yaa ngi ci àdduna xamagoo looy mujje gannaaw xamagoo looy mujje xamagoo yaa kenn ku gën ki gën a sàggan xamagoo yaa moom ku gën ndax xamuloo lu muy mujje yow it xamuloo looy mujje te mujj gi moo takku xista boobu nettali naa ko ba tàyyi moom it defe naa ne ci Madina waa ji ñuy wax xasmaan dégg ko ci kaset yi xasmaan moom yaakaar naa ne sax xëy na am nañu ko fi déggul waaye bari na ñoo xam ne ñuy déglu kaset yi dégg nañu xibaaram mooy bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ku bëgg a gis kuy dem safara na xool waa ji fekk waa ji mu ngi ànd ak jullit ñi di jihaar di xeex ak yéefar yi waaye bi ñu bi xeex bi jeexee ba ñuy ñibbi fekk am na ay bless ay blessures yu metti am nañ ko ay jam-jam mu toog ba mu yàgg jam-jam yi metti ci moom mu dal di fab xeej bi dal di lob boppam xaru fekk bi bi nga xamee ne mu ngi bëgg a dee jullit ñi naan ko yow santal yàlla yow am nga li ñuy wax shahada shahid mooy martyr mooy ku jaay yàlla sa deret ak sa bakkan ak sa alal ak sa roo lépp wacc sa kër fas yéene fa delloo wacc fa sa alal amatoo ci soxla wacc fa sa njaboot bëggatoo ko ngir yàlla jaay loolu lépp jënd yàlla dem di xare ji bëgg fa dee kooku mooy shahid ñu ne ko yow nag santal yàlla yow shahid nga mu ne ban shahid man xeexuma ngir dara dul madinatul munawwara madina boo yasrib la tudd booba yasrib bi nga xam ne sama dëkk maam la waa màkk bëgg a ñëw moom ko di xeex noonu loola moo tax di xeex yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne leen nit dana nekk di jëf-jëfi waa àjjana di jëf-jëfi waa àjjana ba benn saa rek dese ko mu jàdd jëf-jëfi waa safara dem safara naka noonu safaan bi nit dina jëf-jëfi waa safara di jëf di jëf-jëfi waa safara benn saa rek dese mu jàdd jëf-jëfi waa àjjana dem àjjana gis nañ ñoo xam ne jóg rey yonante bi sallallahu alayhi moo leen tax a jóg di jéggi ay jéego jëm ci mujj ñu lu dul tuub bokk ci borom maqaama yu koy bokk ci saxaaba yi tàmbale ci sidna Omar radiallahu taala anhu defe naa ne xisaam waxtaane nañ ko ay yoon moom it ndax fatimatu bintul xataab rakam bu jigéen boobu zeyd ibnu amr ibnu nufay doon boroom këram moom it bokk ci al asharatul mubashira bil jannati bi seydna omar jógee ne day dem rey ko alayhi salaatu wasalaam ne ko yow yaa ngi wacc li gën a di dem ci loo xam ne bu itteelee it du la jikk mu ne ko lool lan la mu ne ko yow sa jigéen gi nga bokkal ndey ak baay dugg na ci diine jooju ngay wax te Muhammad sallallahu alayhi nga wax ne danga nga koy rey boo ko reyee da nga def Banu Hashim daañu la bàyyi ngay dox ci kaw suuf si mu ne nga ne lan mu ne ko Fatima bintul Xattaab moom mu dey di soxna Zeyd moom mu dey dugg na ci diine jooju ngay wax mu ne déedéet baax fekk Seydina Abdullah ibni Mas'ud ma nga fa nekk di leen jàngal suuratu Taaha Taaha maa anzalnaa alayka al-qur'aana litashqaa illaa tazkiratan liman yaxshaa ilaa aaxirihi Seydina Omar dégg na baat bi bi ñuy jàng suuratu Taaha waaye sori na leen ba xàmmeewul baat yi mënu koo teqantal bi muy ñëw Faatimata bintul Xattaab dal di fab kayit wi def ci suufu tànkam ci suufu poojam Abdullah ibni Mas'ud daal di dugg làqu nëbbu te Seydina Omar moom ku ñàng la woon ku bari doole te soxor te bari ay bari histoire daal ci mbiri àdduna ba mu tuubagul mu agsi ne eh, ana li ma dégg lan la ñu ne ko dégguloo dara da ngeen may fooye li ma dégg ci sama nopp laa wax wax leen ma lan la yow dégg naa da nga tuub yàgg sa boroom kër mu dal di jóg taxaw ne ko xool rek mu talaate ko kanam gi di nàcc du mu gisee nag deret ji mu daal di daal xolam daal di yëngu mu am yërmande daal waaw wan leen ma li ngeen doon jàng man defe naa sax man butul danaa tuub danaa dugg seen ne ko yii duñ la ko jox nga di ko xotti wala nga di ko lakk mu géñ ne leen li ma wax dëgg la ci man bi mu waxee lool nag Seydina naa eh, ibnu Abdoulaye ibnu Mas'ud waaw wax de Abdoulaye ibnu Mas'ud daal di ñemee gën nag eh, Seydatuna Fatima bintu Xataab ne ko nag lii alquran la waxi yàlla yow gannaaw tuubuloo yéefar nga sobe nga duñ la ko jox mukk te sangu woo mu dem sangu sangoo bu ñëw nag moom si Umar bokk na ci benn benn yi nga xam ne mënoon nañoo liir maanaam ñi feroon ijji ci arab yi ndax yonent bi sallallahu alayhi fi nekkee arab yi ñi ci mënoon a liir maanaam Abu nga xam ne moom ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam tuuti waaye ñoo bokk jamono ci jamono ji mu nekkee lu mat fukki nit fukki nit ak lu tuuti rek ñoo mënoon a liir ci arab yi ñoo mënoon a jàng nii lu ñu bind xam ngeen ne mbindu arab mi arab yi sosuñu ko ñu ngi ko jëlee ci faris yi waaye dañ ko doon jàng ay benn benn am ñu mën a jàng ak ñu mënul jàng man maanaam ñu mën a liir ak ñu mënul a liir waaye wax arab ji moom xamoon nañ ko mooy seen langue bi nga xamee ne jox na sidna Omar bi mu sangoo ba noppi bi mu jàngee xol bi dal di waltiku walbatiku nag moom tamaaman complètement mu daal di tiit nag wax ji ni mu yéemee ak ni mu doy ak ni mu rafete mu daal di tudd baati seede yi ne tuub na ñu war ko yóbbu nag ñu ne mu ne nag nañ ma woon Muhammad ñu ne ko ci kër Arqam ibnu Abil Arqam la nekk boo demee fekk ko fa bi mu fëggee bunt bi sallallahu alayhi wa sallam dem leen seet ku nekk ci bunt bi ñu di ku ne ci Omar ibnul Xattaab waaye bu ñu ko ubbee mu rey ñëpp ñun ñii yëpp lay rey mu ngi yor jaasi yonent bi sallallahu ma ne gis nga jaasi jooju mu yor bu dikkee bu indee jàmm jàmm la fi fekk bu indee ay jaasim jooju lañ koy reyee ubbi ko di jóg dajeeg moom bi mu ko joxee loxo rek leeru yorant bi sallallahu alayhi wasallam dal di bëtt laal xol bi mu dal di daanu ci suuf yu xaacu yuuxu ñu yenu ko teg parce mu dal di tuub kooku nga xam ne buñ ne abu Abubakar Omar lañ ciy teg mooy ñaareel jullit ñëpp bu Abubakar wee moom moo ciy topp Omar te bi muy tuub fekk ne fanweer ak juróom-ñeent jullit nekk ci lislaam ñoom ñëpp mu weesu leen ku ci dul Abubakar Umayr ibn Wahb moo ko ñaareel moom itam jóge na Makka ba dem Madina ngir rey yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom itam fekk na doomam la ñu jàppoon ca xare ba téye ko fa mu nekk prisonnier de guerre maanaam daal espèce de jaam daal bi nga xamee ne Omayr agsi na mu ngi ràngoo jaaseem fekk waaw danaa ko wax bi mu ñëwee si Sidna Omar ne Omayr mu wax mi xaj bii daal ñëwul lu dul lu bon mu musiba doo nga ko indi du nit ku baax bi ma agsee nuyoo ne ko waaw looy wut ak sa jaasi jii nga ràngoo mu ne sama doom ji ngeen jàpp ca xare ba laa bëgg ngeen wax lu ma koy jotee ma jot ko ba mu jime ci yonent bi salal sama sirna omar daw jitu ko ci ne ko umayr ibn wahb ngi ñew nitu ay la mu ngi gaddu jasim liko ko tax a sa bakkan ne ko bayiko mu ñew mu accès ne ko yow loy loy wut si mu ne xana sama dom ji ngeen japp la jet mu ne ko ya gëna wax lu amul yow nga tokke mbestanum kaaba ga yaag diw ak diw ak diw ngeen ko seen mbokk ñi rayon ci badar ba nga ne tey jii kat biir suuf moo gën kaw suuf maanaam dee ñu suul la moo gën ngay dox ci suuf si nga ne man de bu dul woon sama njaboot yi danaa dem rey Muhammad sallallahu xam naa bu ma ko reyee ñu rey ma waaye kon dem rey ko kooku ne la gàddul naa la loolu danaa leen booleeg sama njaboot duñ xiif duñ mar dana du leen jot ngeen waxante loolu ba noppi nga jóge fa ngir rey si ma nga ne nga ne nga ne sa doom jee la indi mu ne ko ashhadu an laa ilaha illa allah wa annaka muhammadun rasulullah ba nuy waxante loolu kenn nekk fukk dul yàlla ak nu ñaan ñi ko waxante woon kon yow mii yonent dëgg nga dox suur bokk na si ñu jógoon ngir rey yonent bi sallallahu a wasallam te tuub loolu lépp dox suur moom dafa fekkoon yonent nekk ci benn xare ñu dox dox ba mu xuus ci ndox mbubbam yëreem yi tooy mu daal di koy weer ci kaw benn mon benn doj dal di nu nii di xaar mu wow dox suur agsi ak jaaseem yonent bi sallallahu alayhi yorul dara xàcc jaase di tiimale ko ne ko waaw yow Muhammad ana kan moo mën a dox sama diggante yow tey jii mu ne ko yàlla sans borom bi mu ne yàlla sans borom mu tiit di lox ba jaasi ji wadd sallallahu alayhi ma daal di fab jaasi ji ne ko ana kan moo mën a dox sama diggante yow tey mu ne ko kenn kenn kenn dugg nga sarax ma ngir yàlla <laughs> yonent bi ne ko jéggal naa la mu daal di tuub ne ko yow yonent nga hmm? waaw moom de am na ñu nekk ci gannaaw noonu de li may laaj xaw na ma tis mooy mbirum maam Cheikh waxoon naa leen ne mbirum maam Cheikh daal neexul a waxtaane ci mbooloo waaye daal ñu ngi may bëgg a rey mbirum maam Cheikh daal man maa ngi defoon ne rek yaakaar naa ne kon daal ah lan ah, ah? bu ci de benn laaj la kon ñu àggal boobu te dem ci bokk. mooy kooka. ci bi nga waaw lu ngi laaj ci maam Cheikh ngeen bëgg wax leen ko ci maam Cheikh maam Cheikh Ahmadul Muxtaar la tuddoon rek Babacar Mbaye baayam maam soxna Touré yaayam lan ngeen bëgg la lan maam Cheikh day biñ ko laajee ne ko waaw ndax wàllu yi moom bu dee xale bu tuuti ndax dana xam ne wàllu yu la mu ne waaw boo jubee mbooloo nga dégg malaayka yi naan jóg leen xajal wàlliyu yàlla wooy agsi nga agsi rek ñëpp jóg te duñ ko sañ a bañ da xam ne yow wàlliyu nga loolu benn ah, ko déggul dañu ne am na yoo xam ne bëgguma ko wax de yéen a may forcé de dañu ne dama yàlla baal bu mu nekkee xale bu tuuti xamul dara buñ ko masaan génne ci biti dañ koy muur ndax bu masaan teen rek day seen arraché kursi ak li ci kaw lépp te du xam lu mu doon muy jooy ba buñ koy génne dañ koy muur doy na bokk na ay way sarax leen ma ngir yàlla mané néna bok bi nga xamé ni mi nga nek di jang alquran daf daan fam mbubam diko mur ci bopam ñu naan ko yow sa bopp bi lu ci nekk mu ne booba damaa àgg fa góor yàlla ya ak nga xam ne seen bopp kenn waratu koo gis mu war a kaalawu te aw ma kaala moom moo tax bi mu fi dundaatee juróom-ñaar fukki at ak ñeent mu ne fa billaahi jaawastul maratiba kullaha wa min bahri zaatillaahi nahdi wal allu jéggi naa maqaamay góor yàlla yépp ci géejug jëmmi suñu borom tabaraka wa taala laay naane sama naan bu njëkk ak sama naanu ñaareel doy na bopp da ngeen lu defati mais <laughs> loolu du ma ko wax waaw baax na daal waaw doy na doy na doy na waaw kañ wax leen waaw kañ bi mbokk yi garaaw sant bis bi dañ na bisub sant maam Cheikh la moom maam Cheikh ko moom dimbali ñu rek ngir yàlla ak maam Cheikh waxtaan lu ci maam Cheikh gannaaw daal moom nee na bis bu maam Cheikh la ñu ko woote sant maam Cheikh naa duñ ci doyal waaye nga mosal ci rek wax jóg na nee na ndaxam ndaxam ni ma waa àllaaxira xame bu ma ko waa adduna xame woon kenn du denc dërëm tama ne fi doy na gis naa muharrik jooju moom man fekke wu ba mu koy wax sëñ laa ko fekkee moo ma ko nekk li nee na daf ma joxoon benn téere bu ñuy wax jaamiu karaamaati lawliyaa yi nga xam ne wàllu yi yàlla yi fi jaar kaawteef yi ñu def ak kéemaan yi moom la def ca téere ba ci wàllu yi wees yi wéy nee na bi ma ko joxee ba ca déwén sa nee na bi ma ñëwee mu ne ma xool nga téere bi ma la joxoon nee na ma ne ko waaw mu ne ma gis nga xam naa gaañu doy waar de na ma ne ko waaw mu ni ma waaw koo ci gën a naw nag mu ne ko ah man de Cheikh Ibrahima Dasuuqi jaaxal na ma ndax dama dégg ñu ne sidratul muntaha mbindeef du ko weesu lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek moo ko mas a weesu guddik rañaan gi ñu ne yonent du ko weesu malaayika du ko weesu wàllu du ko weesu dara du ko weesu Cheikh Ibrahima Dasuuqi nee na moom weesu na ko mu ne jaawastu sidratal muntaha wa jultu fil malakuuti wa fakkaktu talsama sabil masaani wajadtu fiihi arfan qad xaara fiihi l jinnu wal linsu fakkaktuhu fahimtuhu Cheikh Ibrahima Dasuuqi yi dafa ne man weesu naa sidratul muntaha wëndeelu naa ci pays malakut yi ma xotti tëlsam bi nga xam ne moom lañ tuddee tëlsamu sabil masaani ma fekk ci xaraf woo xam ne nit ak jinne ñëpp gëlëm nañu ca ba xamuñu ko man ma xam la mu doon mu ne ko kooku daal bokk na ci ñi ma gën a yéem li mu ne nag li ma ci gën a jaaxal mooy weesu na sidratul muntaha mu ne ko ah xanaa man gis naa mu xar rek nee na nag laaj ma ko nag muharrik lu mu doon muharrik nag li muy tekki ci arab mooy ki nga xam ne mooy yëngal lépp xaw ma nag <laughs> ki yëngal lu yëngu daal moom muharrik la xaw ma nag ban muharrik la jublu foofu laa ma ne ñaareel yi mooy waaw muhammad yu muhammad yu moom du maam Cheikh rek kay muhammad yu ñi nga xam ne sos nañu tarixa ñëpp muhammad yu ndax képp koo xam ne sos nga tarixa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam moo lay jox wird wi may la ndigalal joxe ko yow ci sa bopp nekkuloo ci wenn yoon da nga nekk bopp yoon bu fekkente ne nit ki nekk na xutbul xaws suñu borom donnaloo ko xutbul xaws yi ko jiitu yépp day amee seen wird waaye moom du nekk ci wenn yoon kooku Muhammad yu doo nga lay doon maanaam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax gis ngeen bi nu ñu wax baytu ba naan euh, Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu ba yónnee na ko jaharan ana aya buniya fa inni la mu murabbika da siwaaya bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi moo ko jox wirdu wi daf ne ko kenn ku dul man du su sëriñ bàyyil ñoo ñëpp sëriñ Tuubaa moom it radiyallahu taala anhu ci géej gi bañ ko fàtteeloo lépp ko nit waxoon li ko nit xamaloon ci wird su borom jox ko ba mu ko daataan jox wirdu boppam daf ko jox wirdu yooyu yëpp boole ko ci loolu moo tax muy wax ne li qutta ma faaqa bihi al-Jaylaani alayhi ridwaanu lazi alaani li qutta ma faaqa bihi abul hasan bi xidmati nabi jadil hasan tamam tamamta li bi ma bihi tijaani faaqa wa kunta li maam Cheikh itam dafa wax ne bi sallallahu alayhi wa ci boppa moo ko jox wirdi yépp gannaaw nag yow da ngay nëbbu doo xot ci yoon waaye wirdi yëpp a ngi ci sa loxo loolu li ko firndeel li mu wax li ma nettali sànq ne nee na mboolem ku fi nekk maay sëriñ boo ko bañ ak boo ko nangoo boo ma xamee boo ma xamul ndax maag sëriñ Tuubaa ak Alaaji Maalik noo fi nekkoon kenn ku ci mu demee jénk dénk na ma ñooñam a ngi sama loxo ah, maa ngi jéggulu waaye damay laaj benn laaj ndax maam Cheikh dafa wax ci way wi ni bidaayatuna lil ni nihaayatun nihayatuna lil anbiyaa bidaayatun sunub tàmbalikaay mooy yamukaay wàllu yi sunub yamukaay di tàmbalikaay yonent yi te ab yonent ñi ngi ci mujj gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam te téere yi dañu ni gannaawam beneen yonent dootul am may laaj nag ndax maam Cheikh ba fi yonent gannaaw yonent bi sallallahu alayhi moo xé moo féete kaw ci jullit ñi walla déet. nga euh, waxi wàllu yi dañ seeni wax dañ koy taxañ kenn du ko lemmi gis nga li sëñ Tuubaa wax ci masaalikul jinaan te abdul wadud da ko wax kalaamuhum ida dahaka ya balid faqul kama a zaki abdul wadud kalaama law liya ilastu afhamu li annani ana ana wahum humu seeni wax bu la jaaxalee yow mi xamul dara waxal li abdul wadud waxoon abdul wadud dafa ne woon waxi wàllu yi day man xaw ma ko ndax ñoom ay wàllu yi lañu man abdul wadud laa seeni wax buñ ko seetee dañuy jaaxle dañuy jommi gis nañ ci awliyaaw yi ku ne ba ma nekkee ci berso yonent yi lañu toppoon ci man loolu lu ko mës a wees gis naa ci mbindum sëñ Tuubaa ci mbindum loxoom loo xam ne duma ko nettali ci yu mel noonu la dégg naa ci mbiri maam Cheikh loo xam ne itam du ma ko nettali yu demee noonu la lañuy wax nag ñoom ñoo koy xam nit ñi duñu ko xam ñeneen ñi duñu ko xam ñoom ñoo koy xam waaye lu ñu wax rek dëgg la waaye fa muy tegu nga dul xam ndax li tax sax ma gën a gàttañ gàttañlu ci yennati wax yi nit ñi dañu dul xam fa mu tegu ndax fekk nga xam tasawuf bu baax bi ñu fi nettalee ne sëñ tubaab bind na ne jaamu na suñu boroom ñetti junni at booba tënaguñu aadama jàngkat yoo xam ne murit lañu di boroomi xam-xam nee ñu loolu taalibe yi rekk koy wax waaye nekkul lu am ndax mënula am waa ji ma ko waxoon mu ne ko waaw kon yow na ngay def ajaabani rahmaanu qabla al xalqi sabina alfa sanatin bi xaqi kon nooy def loolu suñu boroom nangu na sama ñaan wuyu na ma juróom-ñaar fukki junni at te tënagul aadama xanaa juróom-ñaar fukki junni at moo ëpp ñetti junni at ma ne la ñoom seeni wax wax la joo xam ne ne meneen keneen mënu koo xam ndax ki ne suñ borom bu doon jëmm juñ la mën ne mu ngi nii dama naan leen naa ko tariix ba mu ngi sama biir bii soo lambee daj ko ci ki ne suñu borom jaar naa ko foo xam ne kenn mësu ko faa jaar ki ne suñu borom maa ngi demeek moom ni bépp demeek daakaande ba garab gi ak lii ciy jooyee li ci génn nañu demee ñoom ñaar nen laa demee ak suñu borom loolu xelu doomu aadama waru koo jéem a xam mënuñu koo xam mënuñu koo xam kon loolu Abdul Wadud wax rek te sëñ Tuubaa nett li ko si masal ko naan kalaamuhum isa dahaka ya balid faqul kama qaala zaki Abdul Wadud limaamu Junayd bi ñu ko laajee aarif billaahi na muy mel dafa ne lawnul maa i lawnu inaahi fekk a laaj mu ne kaana huna fa zahaba ñu dellu ko ko ne kaa inun ñu dellu ko ko laajaat mu ne lawnul maa i lawnu yooyu yëpp fekk na nit ki li ñuy wax wuusul dëgg bu ko ak bu àggee ci boromam ba àgg ci boromam ba naan ci géej ga dëgg la géej gi dañoo bari nan way dañu bari motax wal ni ñu wuté ni seen jëm jëmm seen bir nonu la wuutee seen nan way ak seen zawq seen gustation nonu la wuutee léegi gis nañ Cheikh abou Hasan Chazili qutbul khawsula neena juróom-ñetti géej lay nan ñent ñi ci asamaan ñent ñi ci suuf ñent ñi ci asamaan moy Jibril mikael israël Israfil ñent ñi ci suuf moy abou bakkar Omar usman Ali maam Cheikh mom neena ci geejub jëm yàlla lay nané yooyu wax ay wax na yoo xam ne nan ko bàyyi seen borom ñoom ñu ko wax ñoo ko xam buñ ci dugg bunu ci dugg ndax waxtaan naa ci tuuti ci ay nit ñoo xam ne ñoo ma sañaxal bu mu waxtaan ci mbirum maam ñu fab kaset boobu ci seenu ñàkk xam ak seeni sentiment yi personnel tasaare ko ci fépp wax ci lu nekk ba mu indi réaction yu nekk waaye bu fekkoonte ne toog nañu ñoom ñooñu ñëpp sulli laaj boobu danaa leen tont tontu yoo xam ne daañu xam ne dañoo xamul dara dañoo xamul dara dañoo xamul dara sëñ Moussa Ka lu mu wax sëñ bi mu naan sa mbootum xalimaa raw daboosu Moussa te way dee ya nga dekkal tëwoon na Isa mag ñi fi nekkoon ñëpp boroomi xam-xam lañu waaye teguñu sa baat dañoo xam tasawuf lu mu doon sa mbootum xalimaa raw daboosu Moussa te way dee nga dekkal tëwoon na Isa ku ko wax ñu toj sa gémmiñ <laughs> waaye léegi bu fekkoon ne lool rek la wax na foo xam ne indi na tuuti réaction bi mu ne maqaamam jëylaane sa tàmbalik feeñ karaamay tiijaane sa ban wa ngay xeeñ te koo taf li sa lor wii taf ko bushra mu tàggoog loru dunya kasaaka uxra ah, waaye ah, am na réaction waaye ñu doon ñu doon réagir it seen i xam-xam ci àggu rek tasawuf neexu la waxtaane ci ay nit ñeneen ñoo xam ne xamuñu tasawuf loolu moo waral ma ne leen kaset boobu réaction yi mu indi yépp te xam ne dara jaru ko ci amu ci lenn lu jar coow amu ci dara lu jar mer wala mbëkki garab wala mbëkk ay miir benn xamuñu dara ba noppi ñaareel bi xëy na seen i sentiment yi personnel rek la ñu satisfaire waaw loolu moo ci nekk moo ci gën a am solo asalaamaaleykum léegi dafa naa mën nañoo ñaanante tàggoo dafa amoon laaj bu ma doon bëgg a laaj man laaj bi ma ci gën a yitte rek fi sëñ Tuubaa di waxee naan kataballahu tabaraka wa taxala anna bayt laal aram tarfahu malaikatu ila Tuubaa wa fihi rasulillahi salaa salaam mu ne suñu borom euh, bind na wax ne Seydina Jibril mu jël euh, Kaaba ga yonent bi nekk ci biir ndika Tuubaa euh, may laaj nag ba xam loolu nu mu demee ak itamit diggante maam Cheikh Mbaye Kabir ak Serigne Touba ni ñu nekkee woon ñoom ñaar ak nu mu demee. bismillah. Mm. kataballaahu suñu borom bind na nangam nangam nangam sëñ Tuubaa daf koo bind ci loxoom man mii ma teg ci sama bët ci lu bari ndax sëñ Abdou Lahad yàlla na suñu yokk leeram mu ne liggéey na fi ci diine ji lu bari dañ fi daatan jóge benn bis mu ne ma boo dellisee Tuubaa danaa la jox ci kataballaahu yooyu nga xam ne sëñ bee ko bind ci loxoom lu bari noonu sëñ Cheikh Mbacke waxoon moom it suñu borom yokk leeram ne ma bis ba ma fekkatee Touba xam naa ne ku bëgg téere nga téere yi ma amee bari na danaa la jox lu bari loolu moom yàlla dogalu ko ndax dafa dal fi jóge diggante bi katabalaahu yooyu mu laa waxoon sànq ne gis naa ci yoo xam ne du ma ko wax taalibe yi sax du ma ko wax murit yi sax du ma leen ko wax waaye yaakaar naa ne loolu ku xam tuuti ci tasawuf yaakaar naa ne même tiijaan yi sax waxuma murit taalibe murit yi waaye tiijaan yi ak ak xaadir yi daañu ko mën a nangu ndax tijaan yi bu ñu xamee ne bu ñu lalee malaanu wasifa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam a ñëw daañu xam kon <laughs> xam nañu kon sallallahu alayhi wa sallam xam ne ni ma waxoon sànq ne béréb ak jamono dañ koy lalli day am diggante yoo xam ne bërëb amu fa jamono maanaam distance amul boo xamul distance penkook soo wooyem ci moom te ruuxu yonent bi sallallahu alayhi wa dooleem xajul ci àdduna amma sëñ Tuubaa li mu bind ci loxo boppam ku xam bindam xam ko suñu borom ci boppam moo bind lu ne te ba mu ko bindee la am baytullaahil xaram malaayika yi ñoo koy yëkkati yonent bi sallallahu alayhi ne ci biir ba indi tuubaa indi ko tuubaa ma ziyaara yonent bi sallallahu alayhi wër Kaaba gi dégg nañ Cheikh Saadu Abihi radiyallahu anhu ne biñ ko laajee lu tax ajiwo mu ne man a atoofu bi baytillahi wan naasu nubbamu kama taafa baadul qawmi fi sirri wal jahri wa daaka qubayla al yawmi wal yawmu rubbama ataaniya baytullahi min mawdi hijri man bu may wër kaaba gi nit ñaa ngi nelaw mu ne ku ñëw ci néegam fekk ko fa de mu ne waaye loola booba ba may xalel la waaye léegi kay néeg baa may siyaare kaaba gay may siyaare kon xaadir yi mën nañoo gëm loolu ñoom itam kon bu sëñ Tuubaa bindee malaika yi dañu yëkëti kaaba ga yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ba indi ko tuba ma ziyaare yonent bi wër kaaba gi maam cheikh ñu ne ko yow lutax aji mu ne waaw ñay aje ña kaaba gay fekk ci ku ci gëna for ne ko ñoon muhiddin ibn arabi e, fi mu tibbe ne mooy xatmul wilaya xam ngeen ne cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu woote na ko muhiddin ibn arabi wote nako ko ibn arabi dafa wax ne moom dafa gis ñëw taxaw ci kanamu kaaba gi kaaba gi par birig yi ñu ko tabaxee di détaché birig bu nekk jóge palaasam ñëw wët ko moom wër ko ni ñuy wëree kaaba gi delluwaat palaasam ba birig yi mat mu des béré bu benn birig boo xam ne dara néew fa moom ci boppam ñu def ko muy birigu wurus birigu or mu dikk ci palaasu euh, birig boobale mattali ko comme ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee woon ne yonent yep ñi ngi melne tabax bu bu ñu tabax bam ag mu dess nak bërepp bo xamne dara ni ko fa mool man ma ñëw mëdd bërepp boobu moy diir mu arabiy jëlé ci na moy khatmul wilaya lolu bimu ko waxé fekk na al hakim at tirmidhi dafa waxoon ne xatmu bi dana ñëw bu ñewé xam ngeen ni Cheikh Ahmed Tidiane laaj nañ ko ndax khatmu bi moo féete kaw mu tekki na ne moo féete kaw bépp wàll yi mu ne ko mu ne déedéet booba moom wooteegu ko mu ne tekkiwul ne moo féete kaw bépp wàll yi budul moom kat waaye dafay benn martaba boo xam ne moom dong moo koy jago jagoo Muhyiddin Ibnu Arabi bi Ibnu Alxakimu Turmisi ne xatmu bu ñëwee sama tur lay tudd maa ngi laaj juróom-benn téeméeri laaj wala juróom-benn fukki laaj goreetuma ci astaghfirullah alazim xatmu bu ñëwee moom rek moo koy tekki bi nga xamee ne ibnu arab yi ñëw na te alxakimu turmisi muhammad ibnu ali la tuddoon moom ibnu arab yi tudd moom itam muhammad ibnu ali bokk ak moom tur ba noppi tontu laaj ya ba noppi gént noonu nga xam ne noonu la nekk moolu wurus mëdd place bi nga xam ne benn mool nekku fa woon mu jëlee ci ne mooy xot mooy xatmul wilaayati Cheikh Ahmed Tidiane moom it dafa wax ne yonent bi sallallahu ci boppam moo ne ko yaay xatmul wilaayati awliyaaw yi seen mbir dafa duggante kéemaane yéeme doy ko waar am na ci ñoo xam ne dañu doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci baatin rek te doonuñu ko ci saaxir ak ñoo xam ne dañu ko doon ci saaxir ak ci baatin ci kem lañ ca yelloo ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn mënu koo doon lépp xel xalaatu ko junni malaayika ak junni yonent ak junni wàlliyu bu ñu leen séddale woon benn pepp ci leeru yonent bi salaatu ñoom ñëpp ñu seey alayhi salaatu wasalaam gaa ñi nga xam ne nag taxaw nañu taxawaayam ci àdduna bi ñëw benn mu sant leen ñu sos yoon wala mu bañ leen koo sant bu leen santee ñu sos yoon ku leen weddi weddi mel na weddi nga yonent bi salaatu wasalaam bu fekkente ne doon nañ ko zahir ak baatin mu wax loo leen ne leen wax leen ne man maay nangam bu fekkente ne nag suñu borom daf leen indi ci àdduna ndax am na ñoo xam ne alali suñ borom dong la xajalu ca jaam ñi daf koy nëbb jaam ñi am na ma mala wàllu yoo xam ne suñ borom daf leen di réyal ba xamal lépp lu mu bind te nga nar texe xamal leen ni leen kii nitu yàlla la wàllu yu la am ñoo xam daf koy xamal malaayika yi rek du ko xamal nit ñi ak ñoo xam daf koy xamal lenn ci nit ñi xamal ko malaayika yi ak ñoo xam ne dana ko nëbb nit ñëpp xamal ko malaayika yi rek ak wàllu yoo xam ne suñu borom daf koy nëbb ba ci malaayika yi ba ci kiraaman kaatiboona yi nekk ci euh, mag yi nit ñi di bind seen i jëf ak seen i wax duñ ko xamal duñ ko def leen ko euh, def leen di nëbboo duñ ko xam kon suñu borom ay mbiram dafa doy waar te loolu tax weddi dara gënu ko dig réer ndax suñu borom tabaraka taala tuuti la indi ci àdduna te mu ci indi def ko nëbb ndax secret yu bari xajul ci àdduna xajul ci àdduna dañu wax ne am na ci ulama yu ñu wax ne bu fekkonte ne tuuti ci nubuwa feeñal nañ ko kon wilaaya yàqu bu fekkee ne tuuti ci wilaaya lu toll ne zarra feeñal nañ ko ci sharia yàqu loolu kon lu doy doy waar la